ay fan a ngi nii capital bu ndakaaru fees del ak i moto jakarta wala sax ay scooter te lu si ëpp ci ñoom nag transport irrégulier la ñuy def loolee nag tàmbali bari lool ci dëkk bi la yóbbu kon préfet bu ndakaaru jël si ay matuwaay ngir fexe ba loolee mën a dàkk ndax itam xeetu transport googee nag méngoowul ak ni transport di doxee ci diwaanu ndakaaru ndax lu dul ñàkkum kaaraange du ko fi indi te loolee nag al asan sàll xel xalaatu nag mu koy bàyyi muy jàll ci ab communiqué administrateur civil boobee nag ne booy xool nag agression ak wàllum këfinu saak gi mu bare ci dëkk bi def yëpp ay moto la ñu yor di dawal te sax loolee mooy yombal seenu jëfin bu ñaaw boobee loole nag mu ne client ak ñiy dawal moto jakarta ak scooter ci biir dëkk bi nag tere nañ ko fi ba mu jeex tàkk ci diwaanu ndakaaru njaay bépp contrevenant nag bi jëm ci dogal boobee nag am na ci ay daan yu bëri yo nga xamante ni lalu na ci préfet nag mooy dànkaafu tey sàkku rek ci police ak gendarmerie ñu gën a am vigilance te farlu naka ci transport irrégulier boobee ndax lu nu mel nag moo tax naka ñu war a bu baax a baax mbooleem boo xamante ni si taxaw ci tali bile mu nekkoon seen naataango Seydina Alioune Diop fii ci diwaanu Ndakaaru